gàtt rek njëgu gramme or bi daal di yokk yokk gi ñu daal di koy xayma ci téeméer goo jël fukk jàpp fukk ak juróom loole nag di jural jafe-jafe tëgg yi ak ñi koy jënd ci jamono ji nga xamante ne nag Sénégal am na ci ci lu doy bu ñu sukkandikoo ji njiitalu lël bi ëmb bijoutier yu Sénégal lii lii moo ko waral. ci àdduna bi warngal képp or bi li muy jar benn prix la. fii ñu toll ci jamono yi may wax ak yow. li ëpp ci oor bi dañ koy jéggaani yi dañuy dem ba bitim réew di ko fa uti di ko fa liggéeylu ji bu ñu sukkandikoo euh, ci euh, kàddoom euh, gramme or bi nag ñoo ngi ko xayma ci juróom-ñetti junni jëm kaw wante nag gramme bu nekk mënees nañ cee wàññi juróom benn téeméer lu mu tuut tuut naka la ñuy def ba li ni mel daal di am partout soo yoree sa entreprise da ngay dem nga jënd or brut or hors TVA dem sa fabrique produire ko ba pare selon ci main d'œuvre ba ca la ñuy taxé ñu mën a am matière première bi fii ñu koy exploité ci Sénégal nga xam lépp dafay jóge di dem bitim réew am nañ ay matériels yoo xam ne soxla nañ ko su boobaa dina permettre bijoutier yi nga xamee ni ah am nañ xarañte mën a industrialiser bijouterie fukki fan ak juróom ci weeru mai bi ñu génn ñu daal di jot ab këyit bu sukkandikoo ci njiitalu réew mi ba Bassirou Diomaye fay jaare ko ci jëwriñ ji nga xamante ni nag moom moo gàlloo njënd meeg njaay mi ak industrie Serigne Gueye Diop. war nag seen xel daal di dal tëgg yi nag bëgg porox ndoolu ci li ni mel ba Sénégal ñu daal di koy boole ci dëkk yi nga xamante ni nag ñoo gën a fës ci wàllum transformation ak njaay. lii di or. senegale yi dañ koy mën di jariñoo mu nekk seen avantage ci réew mi mu doxal réew mi nit ñi jariñoo ko danañ ci danañu ci fekk si.